waa koy mbokk yi yéen ñi safoo seen chaîne Fall en Co ñu amal mbégte a kontaan di dellu siwaat ak ci seeni i xibaar dañu koy tàmbalee foofee ca Kaffrine ak jéye ju métti jafa amoon ci oto yooyu nga xamante ni ñoo tase woon foofe ca diwaanu Sikolo ba mu amoon ci rek lu tolloog juróom fukki nit ak ñeent yu génnoon àdduna ak ñu baree bari ñoo xamante ni rek dañ cee amoon ay gaañu gaañu te njiitum réew mi rek daal di fay daal di àggoon daal di saafo ak ñi nga xamante ni rek ñoo amoon ay gaañu gaañu te nekkoon ci hôpital yi waaye it boole kook masawu coono ñi nga xamante ni rek ñoom ñoo ñàkk seeni mbokk ci noonee rek ginnaaw naqar ak tiis boobee nga xamante ni moo fa xewoon nguur gi jëloon ci ay dogu waaye daal dina rek képp koo xamante ni yaa ngi yor oto à partir de 23h mayetuñu la di daw bokkoon na ci it li nga xamante ni moom moo di pono yi nga xamante ni mooy jóge ca bitim réew te ko fay jëfandikoo ba pare daal di koy gàddu indi fii loolee it nguur gi taxawoon ni loolee tamit dootul mën a tee nekk waaye it képp koo xamante ni yor nga oto boo xamante ni transport la loolee di porte bagage ba nekk ca kaw nguur gi sàkk woon na ngir ñu daal di koy wàcce mu jotoon a sax indi ay jafe-jafe ci yeneen i dëkk fu ci mel ni Tambacounda ak Ndakaaru ak yeneen i yeneen i dëkk waaye nag mujj nañu ko saafara loolee tax na li nga xamante ni ñoom ñoo di dawalkatu oto yi ak seen i syndicat jël seen i matuwaay ñoom it daal di ni li nga xamante ni moom la nguur gi bëgg jël teg ko ci seenu ndodd dana metti lool ba loolee waral ñu daal di woote grève incha allah rabbi talaata la koy jàpp bu minuit jotee fii ci euh, Sénégal ak amoon it boo xamante ni mi ngi doxoon ci diggante ñaari oto benn bi nag dafa demoon Touba Mbacke yóbbu ab néew bay wàññeeku ca la def benn accident foofee ca diwaanu Louga ba lu tolloog fukki nit ak ñeent daal di ci génn àdduna waaye beneen bu garaaw tamit daal di amaat foofe ca diwaanu Louga waaye tey nag ma nga amee foofe ca Sakal ca route nationale numéro 2 bi ci altine ji bi 5 heures du matin jotee la ñaari oto daal di tase benn camion ak benn njaganjaay bu yaboon ay nit yu doon dem ca xew noonee la leen faate lu tolloo ko ñaar fukki nit ñoo fa génn àdduna waaye lu ëpp ñaar fukki nit am ci ay gaañu gaañu. ci noone ki ñu dénk wàllum biir réew mi di Félix Antoine Ndione ak ki nga xamante ni rek moo di Mansour Faye tase woon nañ foofee ngir masaw ñi nga xamante ni rek ñoo di ñi ñàkk seen i bakkan waaye tamit di jaale képp koo xamante ni rek am nga ci koo xamante ni wàññeeku na ci say mbokk dañuy ñëw ba diwaanu Géejawaay foofu te ñu ngi ñuy xamal ni am na accident bu méttee métti boo xamante ni rek am na fa ca amoo cinq benn camion moo yëg ci kaw benn particulier chauffeur ba nag jamono ji ñuy àddoo mi ngi ci diggante dund ak dee mbokk yi lii moo xibaar yi ñu leen jotoon na indil fii ci Fall and Co di ñaan yàlla na yàlla def jàmm ci suñum réew defal ko mbooleem jullit yàlla na yàlla may ñëpp jàmm asalaamaaleykum wa rahmatullah ci kàddu gi M7 arobase 287 Mor Niang fii ci Fall and Co